kon na nit ñi moyu ndax booy ànd koo xam ne du naan du tux du ànd ak jigéen di ko wax waxi caaxaan yow booy def loole lépp ba pare di ko xas am benn géwal boo xam ne bii da doon puus ay brouette Farba ay brouette la doon puus barki démb dama koy wax bul ma kobas bul ma kobas barki démb yorul dara lu mu am dañ ko yaag mooma yem ma xeex ba ñu jot pouvoir mu may saaga kon nit ku dul sa nawle moo la gën cib juddu la ngay jëf bu guddee du ko jëf moom du fa naan këram daani kaam fajar la ma waxoon ci Mahmoud sale lay dem luye na benn barab boo xam ne fa lay nekk toujours ba quatre heures du kooku war naa xas gor soo xam ne billaahi wallahi taala bu ma ko dóoree paxtab yàlla day faatu nama ba dama koy waxaat ay kilifaam neeñ ko ni duma nawleem duma moroomam bu yoroon mille milliards du tax ndax man damaa suur aw may milliards wutuma ko ndax man xaalis li ma ci xam bu duggee ci sama poos bi génn ca bee man du ma dajale xaalis soxlawu may